jërëjëf maître ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar ci ziar bi. jërëjëf muy Hizbut Tarqiyyah te Hizbut Tarqiyyah nga bokk. ni nga ko wax ban nga am ak gis-gis ni suñu taxaw waxee ak daal ñu ziar bi. wax dëgg yàlla xol bi sedd lool ma gën ma gën santaat sëñ Touba. xam ni doon addiya sëñ doon taalibe sëñ Tuubaa rek am njariñ waaye sama xel dem si jëmm joo xam ni moom la sëñ tubaa dimbali ba mu sos lii ba taxawal ka ba mu agsi fii sëñ Atou Diagne yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañ ko sëñ Tuubaa fayal waaye Cheikh Mountakha mii yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mountakha mooy ndamal lislaam bi mooy nabal der bu ñuul mooy koo xam ni ku ko gis ki nekk sa xel du dem kenn ku dul si yàlla ku dul si yonent bi ku dul sëñ Tuubaa lii ndamu lislaam bi la du ndamu yoonu murit àggale na lislaam boo xam ni fépp daanu xam ni lislaam mi ngi soxoo si ay der bu weex waaye tey ñeewunu kenn ñeewuñu benn kilifa ak fu mu mën jóge ndax sëñ Muntaxa wan na ni jeex na si yàlla wan na ni bëggul dara àddina lu mu bëgg sëñ Touba ak ngërëmam yàlla na fi yàgg te wér aussi liggéeyam rafet na wane ni sëñ Touba amul tànku gannaaw ay tànku kanam rek aatu fu mu gën la bëggoon tey àgg na fa te loolu